bu mbokk yi. imam tey li may njëkkee maye mooy képp koo xam ne da nga bëgg wërsëg bu bari lool te barkeel imam. Hmm. sirru waa. ñi nga lay ñaan nga abonné te bës cross notification vidéo ñu dugal rek nga man ko am. bëgg naa boobu bari dem mag waaw waaw bëgg naa boobu rek imam <laughs> waaw surtout waa 99 aaya la imam. waaw 99. mooy jàpp turu yàlla yi. waaw waaw aay boo bind. Hmm. bindal wenn tur ci turu yàlla yi. ndeysaan imam sirru bu yéeme bagage yi mag dëgg laa joxe ni. Hmm. surtout waa waaw. li man ci joxe alal. waaw amul leneen lu ko man uh-huh. sootu waaqe ay aayam 99 la. waaw waaw waaw. aay bu bind. Hmm. bindal benn tur ci turu yàlla yi asmaa ulaahi al-husnaa xam nga 99 la. waaw moo jàpp turu waaw aaya ba bind sootu waaqe bind benn tur ci turu yàlla yi. Hmm. Euh, bu noppee. Hmm. nga wut kayiti xaalis yi nga bëgg a bari le waaw nga sotti ko ci saafara sa ñoom dix mille ñoom cinq mille ñoom cinq mille ñoom deux mille ñoom mille franc bu ko defee saafara soosu imaam yaa ngi koy sangoo ñetti fan nga koy sangoo ñetti fan waaye de nu mu mënee joxee wërsëg hmm. euh, leneen fekk ko ci ba tey beneen sirru ci sirru waaqe xam mi ngeen imaam waaw waaqe ay miimam cent soixante neuf miim la waaw euh, imam dañ mhm. <laughs> ko bàyyi bii nii bi dafa garaaw de ah. hmm. miim ko ubbi dugal ci yaa xam ni yaa naafix waaw waaw bi garaaw na de naayam foofu waaye bi imam wallahi masim da ngay dem ba jàpp ne yow moom da nga da nga jàpp day dem ba jàpp ne maanaam ni muy alalam ni muy ñëwee ni muy ñëwee day dem ba jàpp ne moom suñu borom da ko bëgg a faat gaaw ko jox wërsëgam bii nii may bëgg a joxe ni far ko bàyyi ni moo tax bi duma ko joxe moo tax tey ñu dee ci ak gaay day dañ dañ la woo ba ngay bëgg a dee foofu dong laa yem ni ma imam nag 77 la 806 50 24 ni ma fi saale mi ngi nekk 76 boo ko xebaalu ma la ko la ko nga xoraay 0 08 35 76 681. 77 806 54 77 806 54 WhatsApp la boo ko jot. <laughs> aywa. imaam koo xam ne sa place dañ ko yàq. Hmm. léeg-léeg gis ko place la yàq maanaam. place bu dox lool nga dendeng nit wala nga xuloo mu yak sa place soxor la oustaz soxor la waaw waye ku yàq place am imam hmm. ne bind so tarikh wa sama tarikh taarix waaw ay bu bind bind ya mun taximu waaw bu noppee imam mu suufa place hmm. ba kok non ma defal ya mun taxim très bien suufa ci place bi place bi day delu mel na meloon wala sax mu raw ko ma sha allah imam ko xam da nga néew katan na day tarikh oustaz imam bii waaw mbooleem imam ma sa joxe bi ma ci gëna graw bi ma ci gëna graw gën ci wér ñent tour yalla yi al hayy lu mi firi waaw dundu kon Saakaar daa war a dund. waaw waaw waaw waaw. mu hmm. taxaw taxaw. daa war a taxaw. dëgg la de taxaw du baax. bu dund bu dund du baax. waaw man dama ci naqaree mooy gars yi dañu ko jëli ci am xaalis rek ñun ñu toog ne tooj. kon kon dama ko mën joxe bii naa ko bàyyi. mu bàyyi bi tey ñu dee <laughs> waaye imam bii barke Serigne Touba bi yaakaar àddina ak àllaaxira hmm. bii mun mun garaaw maanaam ku demoon ba mënatoo dara hmm. mag ni am soixante-quinze ans bu ko defee moo waxambaane toll ci diggu dooleem ñu tolloo puissance ñu tolloo doole barki alxuraan puissance oui puissance bi nuñ ko téye waaw nuñ ko téye waaw boobu du bokk ci joxe imam koo xam ne dangaa euh, am ak sa borom kër jafe-jafe waaw maam sa borom kër daal won na la gannaaw Hmm. wala da ngaa bëgg soxna si ay mbokkam bañ waaw wala jigéen gi moo bëgg borom këram ay mbokka bëgg caa génne waaw nan ko bindal lii yastaxfawna min annaasi wala yastaxfawna min allah hmm. bu ko defee yastaxfawna min annaasi faaga la yaatal waaw bind ci turam ak santam ak turu borom këram waaw beneen bi ci des wala yastaxfawna min allah mu def ci turu ñi bañ waaw imaam suul ko fay tooy insa ñetti fan ña bañoon ñëpp dañuy daal di ànd ci sëy bi ñëpp dañuy d'accord ñaata yoon la koy bind saas ñett yoon la koy bind yastaxfawna min annaas wala yastaxfawna min allah mm-hmm. di rek mm-hmm. imam mm-hmm. koo xam ne ngelaw la seytaane moo ko tàbbi bu bëggee mu dañ mm. bindal lii fatiha 70 ayat kursi 70 waaw euh nga bindal ko in yakadu 70 ay bi rek salatu ala nabi ben yon nga bo ko xassum xay mu sango ko juroom ñaari fan ngelawal shaytan la fu ko fekk da koy dindi très bien imam ko amé bocc bob bob bi metti nga bokk ko moccal waaw mocc mocc legi mu sedd legi waaw xam nga wa madraki ñent yoon ñew ci alxuraan mom la ko mag ñi daan saafara waaw bop nit ñent côté la <laughs> jëla sa loxo tek ci digg bi jàng alxaariatu mal khariha wa madraka mal khariha aha waaw eh, tek ci côté jor bi eh, Jang ina ansana, fi laylatul qadr wa madraka mhm. wa samah tarikh wa madraka ñent eh, wa madraka yoy yooyu benn bu ci nekk mhm. alxaariha mhm. benn ina ansana ñaar wa samah tarikh ñett euh biko ñentel moy moy eh, mooy alxaqa sama taarix inaan sa naaw na benn imam mhm. ben wal ben benn wama adrak mhm. bu ko ñent ñeenti wama adrak yooyu mom ngay tari tiflu ko ci ñent ko ci bop yi ak bismillahir rahmanir rahim fuk yoon ak ben mhm. ci sedd ok ci lay sedd eh, imam waaw eh, lii ku ko def ku munta lem gilem duggal ci rondal waaw mu na la duggal prison mu la duggal prison waaw boobu na soxla nak man dama jubadiw saf boobu mu soxla loolu moom dimbalum si yàlla tax moom ba imam Li barke Serigne Touba ku munta lem gileem na daga ci rondal lal waaw waaw mënu laa dugal kaso bi maa ko soxla sax lan la lan la ak yomb waaw ñoo den ko denc on joxe ah. xunóot xunóot waaw xunóot mi ngi bind benn yoon waaw wut nefaru gileem waaw teg ko ci digg ba waaw dem ca awkat mu ëwal ko téere nga takk ko sa tànk ndey yor waaw munta lem gileem dina ko baxaa ci rondal gi mun mun dugal kaso très bien très bien imam ndigg metti Mhm. ba tey naa ñëw ci eh, dayu dayu gileem woowu. ñu baal ma dayu gileem woowu. waaw moo gën a gaaw ci ndigg lu métti imam. ndigg lu métti kese amul looy bind amul looy kii. Hmm. gileem léppam njëriñ la. waaw dëgg la gisoo yàlla joxe misaal ci alxuraan. afala yéen duru ilay kay fa ko li xat waaw ni ma ko bindee. Eh, très bien waaw gileem ba kawaram googu sax. am na yeneen bagage waaw gis nga day ku si ndigg di métti. Hmm. bul bind lu dara jëlal dayu gileem nga dem ñu ëwal ko nga takk ko am na baat yoo tari bu la neexee nga nga boole ko ci gis nga waaye baat yaay ni ba boobu naa ko jox imam yaa ma tiinu yaa ma tiinu ngay tari juróom fukki yoon waaw dëggal ko ci wax yaa ma tiinu waaw boo paree nga tifli ko sa ginnaaw wala ñu tifli la ko muy mocc ndigg waaye nag man moom góor ñu lay moccal du ma moccal jigéen dëgg la man bàyyi naa ngay moccal jigéen ji dégg nga léeg ndax loolu nag ndax loolu xanaa bëgguma la baax man man man sa farma moccu nag sax waaye man <laughs> du ma moccu doo moytu ba moytal jigéen di waaye imam hmm. yaa nga tari juróom fukki yoon waaw ba noppi wut dayu giléem yi fexe ban ëwaloo ko nga takk ko sa ndigg tàggoo nga ak ndigg li métti léegi nag même der boobu sax hmm. euh, am na bayre bu bayre hmm. loo xam ne faw àdduna dégg la waaw am na loo ciy bind rek ci giléem der bi rek ci der giléem boo ci amee tuuti rek am na loo ciy bind foofu faaw àdduna dégg la àggaleel macha allah euh, imam euh, ba tey ci njëriñ yooyu waaw Euh, euh. mhm. foofu dafa Paul Lemon toog fee wax di imam. waaw. ngi bëgg a yàgg de. waaw. naa mi tuuti rek. Euh, imam koo xam si da bëgg a toj liggéey. waaw. ci benn bis. benn bis nga toj ci liggéey. waaw imam da bind ñetti tabat yeddaa. Mhm. bu góor bu jigéen bu ngi lu xam nga joxe woon naa ci. Euh, yooyu nga boole euh, cent onze doomi poobar nga xam ne ku la liggéey aw yaramam day néew yi day néew yi di néew ba kër ma faatu wala xees bi la waaw waaye bii deetoj liggéey ci saase hmm. ñetti tabar yi daa ngay bind bu ko defee boo egsee ci xablum mi masadi nga baam ko juróom-ñaari yoon juróom-ñaari yoon doo ko eggale saar yu hmm. boole ko doomu taal bu tàng jër sotti ci saafara sa sa nga ko benn fan liggéey bu mu fekk sa yaram dafay daal di toj waaw imam koo xam ne si dafa ama bopp bi metti ba tey hmm. la yastaxlifannahum xam nga day dox ci lu bari moom daa tutaale moom daa tutaale waaw ba ci néew kàttan da ci dox waaw moom la yastaxlifannahum hmm. euh, imaam ki nga xam ne si ne boppam day metti hmm. nga jël sa loxo teg ci boppam euh, jàng la yastaxlifannahum benn baat bi rek nga jàng ko juróom-ñeenti yoon cëfe ko ci bopp bi insha allahu taala suñu borom dafay daal di saafara bopp ba ca saase saase imaam euh, koo xam ne si ne dafa bëgg am liggéey kooku imaam day jang fatiha hmm. bu egge ci iyyaka na'budu iyyaka nasta'in mu baamu ko juróom ñaar fukki yoon hmm. daal di ñaan aajoom hmm. ñetti fan la koy def nak ñetti fan waaw kon ak julli lay nek waaw fatiha nga ci tari bu egge ci iyyaka na'budu iyyaka nasta'in nga baamu ko 70 ak julli da nga koy julli ah ak julli waaye julli gi fatiha nga ci tari ñaar ñaar rakka lay nek rakk bu nga jang fatiha waaw bo jàngee fatiha alhamdulillahi rabbil alamin waaw arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu iyyaka nasta'in iyyaka na'budu iyyaka nasta'in ba mat 70 fois nga doog eggale ñetti fan nga xëy de insha allahu taala nga am liggéey. Hmm. ci lu gaaw a gaaw loo xam ne si ne du yàgg dara. ok taam jëlu sax. Hmm. kon xam na imaam euh, dañ lay daal di sant rek. waaw euh, bu ko defee daal di sant mbokk yi nga xam ne ñoom it ñu ngi nekkoon di ñuy déglu. waaw waaye imaam xunóot mi lu am solo ngi ci imaam ba ci gone goo xam ne si dafa lëj. wala kuy tux tux kuy tux meenu. waaw ñëpp na mënu koo bàyyi. Hmm. imaam xunóot boo ko defee mu bàyyi ko. dama ciy ci am vingt lu ci am vingt bi. waaw da koy baax da koy bàyyi. imaam xulul ngay bind benn yoon. Hmm. ihdina siraatal mustaqim nga baam mu jàpp limu allahu. nga boole ko suuf su jóge ci bàmmeel wàlliyu hmm. nga jox ko ko mu koy naan juróom-ñaari fan imaam bu doon koo xam ne ñëpp dañu kii daa koroni ci pon mi wala ci yàmbaaji. waaw mënu ko bàyyi da koy baax. Hmm. dëgg la léegi tàggalu sax jotaay bi jeex lay ñaan nga bës logo bi daal di abonné ngir yokk ñu doole vidéo bi bëri na ay njariñ lool man nga ko seetaan jaajëf